waxtaan bi ma bëggoon mu tegu ci dëgg Badara Sow maa ngi lay nuyu merci beaucoup jërëjëf koo def li ngeer def na la bóor jërëjëf euh, amoon na euh, ay jamono yu soriwul dara génn naa daf sorti sur Socé Ngaye par rapport ak vidéo bi nga xamante ne nii defoon na ko par rapport à ses te vidéo boobu amoon nañ ci lu ñu métti lool ba man ma def vidéo daal di ko tontu. bi tanté ko tontee nettalu xuloo lay indi le maire Ahmed Aïdara man woo na ma personnellement sama numéro de téléphone mu ne vidéo bi nga def dafa def effet parce que on a eu 4000 personnes yoo xam ne désabonné wu nañ mu ne ma te waxu soose njaay boobu am na noo xam ne dañ nit da nga koy waxee ma ne ko li ñu métti ak li métti ñu désabonné mooy dañu jàppoon dañ la tooñ bu ñu né dañ la togn yow ya def sa publication Facebook bi nga défé sa publication Facebook ñun ñëpp ñu daw songandoo la abonné ndo kon su nekkee amna kenn ku bëgg désabonnez-vous mané ko nu muy TFM difa xewé RPS RTS à chaque fois nit ñi dañuy mer naan duma ma RPS RTS du ma seetaan lii mais musuma gis ko taxaw ne su leen neexee ngeen seetaan su leen naqaree dem mané ko parce que le client ou la cliente est roi ou reine <coughs> mané ko lool mo ñu métti beneen mbir bi ñu métti mooy bi mu ko waxee ba pare peut-être en direct wax mun na la rëcc mais jarutoon ñu daal di ko dugal ci Facebook ma ne ko loolu moo ñu métti woon ñu waxtaan nag lu yàgg waxtaan boo xamante ni ci dëgg lañ ko teg ma ne ko personnellement li ñu waxtaan maag yow man dinaa defaat une autre vidéo mu ne ma mën nga wax sax sa biir vidéo ne maag yow waxtaan nañ parce que man su may waxtaan nag nit ñett ñii mu ci man du ma la enregistré du ma nettali say wax ci nit du transféré suñu waxtaan mun naa ko nettali seet li nga xamante ne nii suñ ko nettalee day rafet ma daal di ko nettali mu ne ma ma est-ce que xam nga ne vidéo bi bu mu amee ba tey y'a mille personne yu désabonné wu dañ cee mujj sonn di lijjanti di lijjanti ba am 100 personnes yoo xam ne ñëwaat nañ abonné wu mu ne ma te boobu temps mu ngi fekkoon ñu war a jël deux animatrices ou deux animateurs yu bees yàq nañu man tamit ma daal di ko waxal lu ñu lu ma métti yëpp kon li ma métti nag moo métti des désabonné yëpp parce que soo yiree vidéo bi dañ la naan je me suis désabonné après avoir écouté Socé Ndiaye je me suis désabonné après mu ne ma loolu nga wax tamit dëgg la te nangul naa la ko te mënumaa woote kenn ku nekk mais dama lay ñaan comme lii outil de travail la te am na ñoo xam ne ci la ñu yaakaar te fi mu nekk nii suñ la waxee ne désabonné yi sentir nañ ko wax nañ la peut-être loo xamante ni nii amul mais sentir nañ ko te dama bëgg à travers ci yow

damay nekk président wala Président ou le président moo indi des abonnés parce que c'est c'est sur le terrain politique Si on tonton sur le terrain politique la sur le mais un outil de travail il y' a une personne qui s'appelle Pa Hassan Il y' a une autre personne qui s'appelle Mami elle est joviale daf ñu neex sax di leen déglu mais neex mais jënd sa connexion C'est le compte Facebook ou la chaîne YouTube C'est la chaîne YouTube pour euh, Badara Sow ma ne connexion utiliser sa connexion utiliser sa temps di seetaan ñu naan la su la neexee nga toog su la naqaree nga dem loolu tamit nit ki day yëg boppam. donc lii mooy li nga xamante ne nii maa moom waxtaan nañ ko peut-être ci biir live bi su ma fàttalikoo leneen dinaa ko wax parce que tamit sooy nettali da ngay nettali li nga xam ne moo gën a rafet rek li nga xamante ne nii day euh, boole xol yi ma ne ko man personnellement sama vie lépp yombutoon damay jóg di daanu di jóg di daanu ba yegsi fi ma yegsi keneen di jóg di daanu di jóg daanu ba yegsi fu mu yegsi Je ne ko kon ñun su sommes suñu bop patriote Nous amuñu ben intérêt nit dara ci ay doomu sénégalais ñu dañ koy par contre doomu sénégalais amul ben sañ-sañ yaakaar ci doomu doomu sénégalais ba manquer de respect loolu yëpp mu nangul ñu ko nañu man bëgg ngeen dem abonné wu su ñu analyse analyse nan la analyse donc on dit que li nga xamanteni ni ni def nako ko c'est à moi de pardonner parce que peut-être du Socé Ndiaye moom ci bopam mo ñëw vers nous mais monsieur le maire Ahmed Aïdara mo ñëw vers nous peut-être ñëw vers nous euh, peut-être personnellement la peut-être après concertation mom mu nek la voie standard la voie autorisée lolu du ma ci dugg parce que waxuñ ci mais li meuna am ba meuna am moy li woné né ne ñoo fait la force li woné né lo nangul kenn du la ko parce que buñu jugandoo bañandoo ko dem désabonné wu ñom yëgëndo nañ ko té yaakar na né yu mel nonu dootul gaawa am muy ci mom muy ci kenen donc mustapha Diop nee na Socé n'a qu'à s'excuser publiquement il a été très maladroit d'accord na ci lolu d'accord na bu baax ci né il a été très maladroit mais tamit damay bëgg ñu d'accord ne ku nekk ak sa caractère am na ñoo xam ne rëy na len Men soun dja pene nyon ton, di moun e ekskuse ou. Te yon yene woun te, Sosan Ndiaye moun jogye fwen dah yon, yene woun, chen di moun wachin dah yon. Men de, yon chouz moun nan kawak, la video el men a ete suprime, wale moun gise pou moko. Pour moun gana wak liga hamantene, ni moun yi degit moun, moun yi tou nou varm. La video a ete suprime, loun moun ekon premier komba. Dezem komba, moun ekon, les ekskuse de Sosan Ndiaye, moun moun ekon moun moun moun moun moun moun moun moun moun moun

mais j'ai remarqué peut-être je me suis trompé mais j'ai remarqué que la vidéo a été supprimée mais je la réaction de 2A TV maintenant quand on dit la réaction de 2A TV ce ci bopam réagir wala n'importe quelle personne habilitée à le faire ndax sa doom sax nga sa pour sa doom yow nga dem pour sa donc je pense que tamit Ahmed monsieur le maire su jëlee téléphone mu woote par rapport à une situation defe naa appel boobu mënuñu ko jël ñu ñu neenal ko parce que su yëgutoon ne daf na loo xamante ne nii métti na ay abonné am su yëgutoon ne la réaction des abonnés créé na fa benn vide kon defe naa du jël jël mu jël téléphone te moom tamit wax na waxtaan nañu yàgg mu ne man lépp lu ma doon sénégalais yi ñoo ma ko doon ma ne ko yow sa revue de presse ba lépp Sénégalais yi dañ la doon seetaan te soo tijjee sa chaîne am na yoo xamante ne nii wax bi dañ koy moytu parce que wax dafa métti wax balu fetal la nekkuma fi nag di joxe leçon de morale te du ma jouer les moralisatrices parce que nekkuma kenn bay mun a moraliser kenn mais li xew ba xew mooy man de ci sama jëmu bopp nu ma jàppee li nga xam ne métti woon na ma tey neex na ma parce que combat bi bi ñu koy porté mooy ñoom ñu yëg ne kiy jënd gerte caaf comme ni ma ko waxee woon sama vidéo ki jënd jël clando ki nan sombi ñoo ñep am nañ njëriñ ci 2A TV parce que ñooñu tay ñoy dem maçon wu am journée 2000 mai kat bi moy dem jangé ñu wàcc fay ko xalissam mo xam dafa am connexion wifi mo xam day jënd données mobile euh élève bi lañuy jox peut-être ndekkeem mu denc ci 100 francs 200 pour su weer dee mu jënd ben 2000 francs connexion ñoñ ñep ñoo koy seetaan ñooñu tey soo demee ba yëg sa bop bëgg léna xép ñoñ tamit mën nañ defante ak yow à leur manière. Eliman Wade bravo madame je suis avec vous de toute façon Ahmed Aider doit revoir sa façon de gérer les choses il commence à avoir beaucoup de mécontents il me semble effectivement xamna lool tamit mom dina ci bayyi xel ndax dina sétane vidéo bi na commentaire yëpp mom dina ci bayyi xel. comme nous ma dit, waxee mooy nit koo xeeb yeb je pense que action que nous doon poser acte yu poser ça devrait être des actes symboliques parce que nous, nous sommes des patriotes parce que un patriote mooy nga ni de dina sacrifier pour l'intérêt supérieur de la nation Et comme ki nga xamante c'est pour les sénégalais créé par des sénégalais pour des sénégalais dina ko jàppale mais bëpp sénégalais bu dem ba yëg boppam fëgg dënnam dinañ ko ne yow doo kenn mu nekk man mii daado ba su ma demoon ba fëgg sama dënn ne man la daado wax leen ma ne yow doo kenn mu nekk chaîne bu mu munti doon mu nekk société bu mu munti doon munoo ko créer Sénégal yaakaar ci dërëmu sénégalais yi dakaaru sénégalais yi li mooyu sénégalais yi ba pare bëgg a wane ne yéen ñooñu ma yaakaar seen dërëm seen ñaar dërëm parce que man su ma yoree sama oto bu rafet man su ma yoree sama iPhone yow sama portable bu ndaw nga yor yow Euh, da ngay dugg clando kon yow yi tegatuma la fenn te fekk ne dërëmam boobu moo tax nga nekk dara looloo tax ma ñëw di leen ñaan daado te yaakaar ni su ma leen ñaanee dina am ñu ma may parce que ñaan ñu may la lëpp loolu yàlla may ko kenn defe naa nga ñaan lépp ñu may la lépp yàlla may ko kenn mais man maa ngi leen di ñaan diir bu ma nekkee ci réseaux sociaux yi diir bu may def live yaakaar naa ne def naa sama kéemtalaay kàttan ba yu bëri kenn dégguma ci sujet su amee te maîtriser wu ko duma ko wax parce que dama respecté ñi may seetaan bëgguma wax dara loo xam ne suba dañ may vaar bëgg naa su nekkee benn nit moo may seetaan tamit lu ma wax kenn du ci mën a dindi dara en tant que jàngale jàngalekat tamit su may wax dinaa fexe ba li may wax mu am njëriñ te bu am baat boo xam ne nit su ko jëlee dina ne ah lii de bett nañu ndax man su may wax damay waxé quatre aspects motax awmu aw droit à l'erreur yan moy quatre aspects yoy damay wax en tant que kat am ay élèves terminale yo xamné dañ may seetaan damay wax en tant que patriote nga xamné luma lu ma gàkk wax lu gàkk day gàkkal kuréel guma bok bokk muy Pastef les patriotes damay wax en tant que féministe parce que tamit je suis féministe lo xamante ni nii su génnee sama gémmiñ biñ ci xeeb jigen mais de djema en tant que citoyen modèle Je xamanteni ni su waxé ci pour Sénégal nit du sénégalais du Sénégal à travers sama jëmm ju ndaw ji té ko du ko calculer motax ma ñaan ñu vidéo ki nga nga ba désabonné wu ma ñaan lu ngir ak bi catholique euh, kon ñi nga xamante ni nii jullit ñi la maa ngi leen koy ñaan ci barke Seydina Mohamed ci barke weeru gàmmu gi ñi nga xamante ni nii ñooy katolik maa ngi la koy maa leen koy ñaan ci barke euh, euh, yonent yàlla Insa Jésus Christ ak euh, yaayam bu sell bi soxna Mariama ñu génne lépp loo xamante ni nii nekkoon na suñu xol ñu dem ñu a jiwaat te yàlla rek tax te bëgg suñu réew rek tax te bëgg ay sénégalais yi nga xamanteni dañu investir ci benn chaîne di liggéey ci benn chaîne di yaakaar ci chaîne boobu ñooñu bu ñu dem ba sëngéem ndax euh, Sénégal liggéeykatam nekkuma du joxe leçon de moral de Sénégal katam su benn nit di liggéey mu ngi dundal 10 personnes même su amul 10 doom mu ngi dundal 10 personnes wax la dégg-dégg la laaj tey man maa ngi liggéey yàlla def na amaguma bébét maa ngi ñaan yàlla am doom loolu sama ñaan bu rëy la ñaanal leen ma ko Mwen tay, ki sa mwen ligay bo ou, dina am as dekondo. <coughs> Ekskuse pou. Balen. Dina am ap dekondo, bwiki wese gamne kou ma djokop. dina am jaaykat boo xam ne maa ngi jënd ci moom peut-être liggéey bi moo tax ma am la ma jëndee ci moom ma jënd ci moom mu dem dundal famille am dinaa am dinaa am dina am moo tax ma dama ne képp kuy liggéey am salaire ci salaire boobu minimum yow jàppale nga ci 10 sénégalais. loolu nag taxul ñu ne Socé Ndiaye li mu defoon yëpp gongo déedéet dénoncé nañ ko naqarlu nañ ko méttitlu nañ ko teg nañ ko sur la place publique te ñun yaakaar naa ne képp koo xam ne. waxu Socé Ndiaye dong moo taxoon nga des wu tey sa xol war na sedd pourquoi sa xol war na sedd parce que combat bi bi ñu ko jàppee demuñu ci télé ñu ci dara plateforme yi nga xam ne yàlla may nañu ko ay kon nges nee na dafa bëgg a participer léegi ma may ko mu participer ah rapidement waa léegi kii yàlla dafaatal ma xool xamante ne nii liiw soo sa ngaay waxoon moo tax nga mer ba désabonné wu tey na soxal set parce que ñun ñii sans ñu dem ci télé saa ñu xamante sans ñu am xaalis wone nañ ne suñu booloo lu ñu neex day am oui ay kon salaam ñas Kumba Abdallah maa ngi lay di la ziar waaw yow yaa moom ziar borom sant bu neex bi <laughs> di yal na yàlla kontaan macha allah macha allah. Mm-hmm. Eh, kero déglu nañ sa vidéo bi bi mbir mi amee. waaw. bon nga waxee ak ak expérience dëgg-dëgg xam ak tey ak dal xam képp ku dégg vidéo boobu tey kontaan man keroog sax laa lay laaj njëkk seetaan sa vidéo mais. dama ne mais kii moom maanaam inspiration bi macha allah daanaka waxal nga ñëpp quoi waxal nga ñëpp ci li ma mën a wax. jërëjëf jërëjëf. ma xam ne teg nga ko teg nga ko ci ay argument xam nga. jërëjëf. maanaam daal wax boobu wax kenn amul woon lu mu ciy teg xam moo tax billaahi naroon naa cee déplacé sa basi ak man kii moom waxal nga ñëpp. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf. beneen bi tamit ma ma amaat ci beneen jàngat ba fan yëpp ñaata jot moo tax sax waxuma ci. parce billaahi wallaahi taala xoolal nii laa bëggoon a defee audio sax waxaat na parce que yëpp dem abonné mhm. damaa gis damaa gis benn action parce que li ma gis mooy. keroog kër Barthélemy Diaz. Mhm. dama fa gis Ahmed Aïdara gis ko Ousmane Sonko. li mhm. ma ni ma gisee Ousmane Sonko mel ak Ahmed Aïdara ma xam ne Ousmane Sonko bi kat merewul Ahmed Aïdara jàppalu ko dara. ma gis na Barthélemy Diaz mii kat merewul Ahmed Aïdara jàppalu ko dara. effectivement pour ma dëggal li nga wax uh-huh. moom Ahmed Aïdara monsieur le maire uh-huh. parce que comme su may wax euh, Ousmane Sonko dama naan la président Ousmane Sonko man ñëpp ñu nekk ci yeewu askan bi dama leen a bëgg a jox seen wàccuwaay xam nga man dëkkuma géejawaay du yàgg ba Ahmed Aïdara musuma mun a fal dara parce que dëkkuma géejawaay man je suis né à su Somone laay sëy mais d'abord ñun waxuñu woon par rapport à sa position mais tamit comme waxtaan mooy indi waxtaan mm-hmm. waxtaan naag lu bëri man mm-hmm. ci digganteem ak Ousmane Sonko mais am na wax joo xamante ne nii du waxu du waxu ëtt mën a wax du mën a waxu ëtt parce que man tey su ma la woowoon en privé li may wax ak yow yëpp am na loo xam ne bëgg naa nga génn ko am naa loo xamante ne nii su ma sañoon du génn te ñun dafa rek moo ñu tax a jóg mm-hmm. léegi yow le fait que Ahmed Aydara woote wax dëgg yàlla moom mu ngi su sañoon day jàpp kenn ku nekk woo la présenter la ses excuses demander la nga abonné waat yow tey loo ci xalaat. Mm-hmm. man dégguma dégguma nga ne. su ma ne le fait que woo ma parce que mënut woo ñëpp. man maa dafa laaj waaw man la woo. mu ne ma dama bëgg sooy def live sax neel man su ma sañoon damay woo kenn ku nekk ne la kaay abonné wu waat am na. te ci la yow loo ci xalaat. dëgg la loolu loolu ñun ñoo ko déggoo li wax xanaa man remarque bi ma def keroog. Mm-hmm. Ah. mo taxone ma bëgg o o oo patriote yëpp sax ñu defaat abonné waat xam nga parce que ñun kan la ñuy xeexal Ousmane la ñuy xeexal n'est-ce pas waaw ya, te Ousmane mi ñuy xeexal amul amul ak problème ak ak ki ñuy xeex ñun dëgg la képp ku Ousmane ñun képp ku Ousmane am ak problème dañuy am ak yow problème mhm. képp ku Ousmane am ak yow jàmm dañuy am ak yow jàmm yaa ngi dégg dëgg la ñun daanaka parce que suñu combat noonu la après ñun bi ñu taxawee seetlu mhm. eh, ñu gis ne ba si si Birame Soleil mu ngi ko war a dem ñu mm-hmm. gis El Malick publié que ne yéen ñëpp leen abonné ji si lan xamee ne. Mm-hmm. réeroo amul ñàkk waxtaan moo am yaa ngi dégg am na loo xam ne nag ñun mënuñu koo xam ñun ñu nekk ci biir. loolu sax pour ma yokkal la nee na ma moom sax dem na gis euh, le président Ousmane Sonko bu expliqué ko mbir mi ne ko mais na Birame Souleye ñëw pour patriote yi xam ne meroo amul. mu ne ci la Birame Souleye ñëw man non dégg nga ñun ñun jàngatee affaire bi rek yow après. Mhm. après xam naa dinañ jëlante ci suuf dina am lu ma la lu ma lu ma la yónni nga xam ni waaw d' man sama numéro de toute façon sama numéro téléphone mhm. dama ko dugal sama page Facebook parce que damay sëy ah, te nëbbuma dara comme man lu may wax nëbbuma dara dara sa numéro fu la neex nga dugal ko man ma ci ñu naan kii laay jox sama numéro wala kële laay jox sama numéro bien vrai respecté naa ñooñu tamit mhm. mais comme que man dama yor liggéey boo xam ne état aayewu ko di sëy état aayewu kon yaakaar naa ne aw ma lu may nëbb moo tax bëgg a da nga may mën a jot parce que dama ko dugal ci page Facebook bi te mooy sama numéro seulement su may laaj bu ma jël la waa kay jërëjëf ah. dinaa ko jël incha allah waaw mais daal ñu ngi ñaan partenaires yëpp xam nga ñu demaat abonné ña xam ni waaw réeroo amul quoi ñàkk waxtaan xam rek ni waa ni mu demee woon la ak xër bi xam nga ak mi soo sa njaay man problème mooy waaw waaw soose soose c'est que ni mu génne war woon a génne noonu ni mu génne metti leen metti ndaw parce que argument bi ñu ci indi woon xam nga parce que ñun fay ñoom ñoo ne woon kaalis abonné ah parce que premier jour ñoom dem mhm. leen ngeen xool première ah, émission xool fajar laa yeewu di xaar émission maa ko njëkk a bépp bépp groupe whatsapp bu am dugal naa ko am na groupe whatsapp yoo xam ne sax amoo droit amoo droit dugal ko dugal ko vidéo mais xool damaa forcé dama forcé am na mbir yoo xam dama forcé dugal ko. Mhm. te ba tey nii tey si suba gars yi ku mel ni Omar Diallo xool. Mhm. six heures du matin la yeewu da koy dugal bépp groupe WhatsApp xam mhm. bi chaîne bi doo commencé tamit ñoom ñoo ne ñëw leen abonné ñoom ñoo ko waroon. xëy na loolu moom nangu na a baax a baax a baax. waaw abonné leen partagé leen gars yi yeewu. gars xëy benn jour di partagé ma ñu dugal ko fu ne chaîne bi moo tax premier jour chaîne bi di ñu dugal ko fu ne même pas deux jours mu am xaw deux cent cinquante mille xaw ñaata ñaata abonné te loolu lépp partenaires yee koy yow ko liggéey moo tax bi boo ñëwaatee ci ñun nañu soo leen abonné ak soo leen abonné a xam ñu ne la du ñu abonné xam waaw waay loolu moom mais rafet na kontaan nañ ci xam merci beaucoup merci beaucoup donc yaa aji ndaw Pastef kooku sama sœur la fonk naa ko nee na ça n'empêche pas qu'on a notre tête sur les épaules aji ndaw loolu dañ la koy dëggal bu baax a baax a baax yow moom ku la xam-xam ne gaynde nga ci xeex bi gaynde nga ci Ousmane Sonko sa alal sa jot sa dara du ko fekkee ndax yàlla seede na ne maag yow dañoo bëggante soppante ndax bokk fu ñu bokk feneen fu weesu politique